mais bëggoon naa nga xeex loo xamante ni que mooy damay ñëw tey ci góor ñi. Mhm. da ngay gis koo xamante ni dina jël loyre dina takk soxna fekk mu fees dell mu sëy ak moom benn at ñaar ba ñett ba ñeent am euh, moom njaboot mhm. jékki-jékki abandonné ko bàyyi kook yaay ji yaay ji moo ci nekk di kërti kërti mhm. kóoti kóoti pour lijjanti pour pour pour euh, dundal euh, pour dundal parce que doom leen totalement est que tamit jotul yéen ngeen woy xam naa yéen dama leen a. maanaam ñaax ci xale yi. Ah, ah, xam nga nu ñuy def. ndénkaane maanaam daal mujjee wàcceel ñuy ndénkaan. non li nga wax solo li nga wax dafa am solo. parce que am nga solo li nga wax ni. Hmm. am solo moo tax mu bëgg dafa am ku muy kaas nag. Louise bu koy ma ne maa lay lay défendre. ndax dafa ay pouponnière yoo xam ne pouponnière locale. bii <laughs> non li ngay li ngay créé. Ah. man daa am ay pouponnière locale yu nit ñi créé. mooy li ngay wax rek jur sa doom pare dem dénkaane ko di sonal nit. bu fekkoon duñ koy dénkaane sax mu ngi dañ lay abandonné totalement. waaw moom laay wax mooy première légale du yoon mm-hmm. xam nga Ismaïla la woy bi mu woy nii. Mm-hmm. xam nga kañ la ko woyoon. bi mu koy woy waroo fekk benn dëkkandóoram. Mm-hmm. la ñu sàccoon. dañu tegoon gaz. di togg maafe. ñu sàcc ci ni maafe bi yóbbu ko. <laughs> boobu yaa doon dàq ji sàcc. te këram nag boobu ñu ngi wuti siddeem ca àll ba ñu. tey nii rek ngeen. d'accord xam nga. Eh, eh. xam nga yéen xam naa ni. téléspectateurs yi li moo tax ngeen di bëgg ngeen di. am seen base dafa dindi seen stress. et que ñun aussi on est tax ma naan la courage gis nga. <laughs> bëgg naa nga nga nga xuus ci sa question bi Mère Dia bi. je pense que dégg nga ma. est-ce que jarul tamit ngeen euh, ngeen ñaax xale góor yooyu nga xamante ne dañuy jur seen i doom ba pare daal leen abandonné. seen jabar bañ leen a sàppi. parce que yaay fas a doom. xam nga ñooñu lu leen daal. Hmm. ñàkk doom. <laughs> dëgg la de. nyuruh-nyuruh ndax jigéen ñi dañoo sonn xam nga boo xoolee ni sa baay dafa jëloon sa yaay ba nga judd sa baay uuf la uuf sa yaay ba nga màgg jabar hmm. sa jabar atan ko sagane sa bay sagane woon won sande waaw ñàkk joma la dal waaw kay oh. ak doon giléem ak doon giléem giléem di lek <laughs> ci gi guuy waaw di xol ca ga ca des xale yi dañoo rafet kesse hmm. nit bu amé njabot da koy téye téye sa njaboot mooy fulla mhm. tak sam nawlé moy xalé bu ndaw nga jëk ci mom man dama dal jël sa dom maye ko muy xale bu ndaw nga njëkk ci moom njëkkat tuur ci dënnam bi meen ni ko yal banding ak njabootam woon leen ginnaaw di dundal ay jàmbur ba sa doom uh-huh. yoon uh-huh. dundal sa man am naa ci mais lan moo tax mënoo yor sa doom uh-huh. xale yi doon mag de te am na doom yoo xam ne boo leen beddi koo du nu fàtte de. dëgg man nag man mii toog man. ci télé laa toog. waaw. di ma dégg man moom sama njaboot mosuma ko bàyyi kenn man sama njaboot maa ñoom du ñu xiif du ñu mar du ñu rafle koñ bu ma dëkk ñu ne samay waa kër dama leen a yàq waaw loolu mooy yoon. doom mm-hmm. boo ko juree da ko yàq. dëgg la fu mu dem du fa toog. boo ko yàqee da ko yar. Mm-hmm. <coughs> ci jom ak fulla fayda. Mm-hmm. waaye takk sam naaw rek am moom i doom ñàkk jom rek. daw responsabilité. dëgg la képp. Ah. trafic moo tax ni takk di fase. <laughs> ñii tam moo tax ñu ragal sëy ñoom it. waaw xam naa loolu tax léegi jigéen ñi nu ma tunoo sëy. xoolal ñoom ñeent ñëpp kenn fase. ñoom ñeent maa la wax sëy. ñu ngi ci buum de. kan moo ne ci buum. sabel ne ma xamal. nga ne <laughs> dégg nga ñoo ngi déglu ko ma. ah Pulo de. sabel ni ko 2019 ah. incha loolu rek la ñuy ñaan xam nga lan la. dégg nga xam nga lan moom gis nga senegal Sénégal gis nga animateurs yi ak kii mm. ak journalistes na leer vraiment. Euh, ñu baal ma rek mais dañoo desee maandu parce que dañuy dugg dañuy bëgg a dugg ci vie privée jàmbur xamaloo ma dara kon dama ne moom xamaloo ma dara ah. ñeenti célibataire ah la wuy voilà non dama doon rendre hommage xale yi nga xam ne dañu décédé ci accident bi passé masawo waaw ku métti maa ngi leen di masawo seen seen i famille bu baax a baax nekk na lu métti nag mais xam naa ne fi ñu jëm moo leen gënal yaa ngi wax léegi ñu ngi ci attaque bi naa dañuy attaqué lii. nga attaqué mais Oumou Sow damaa bëgg nga jël damaa bëgg nga jëw nga jug taxaw Oumou Sow. Mm. jël commande bii. ma mm. dox ñëw ba nii zappé ndax téléspectateur ñu ngi lay. parce que instant vote bi dafa jot. Eh. Mm. semaine bii nag. mais téléspectateur bi. man dama dégg de. dana tàkk umu jëlal. Hmm. dana tàkk lu may tere tàkk. Mansour nee na du tàkk de. lu tax du tàkk. Ah, <laughs> Mansour tey laa xam ne lépp dëgg la. dana tàkk umu saw ba téyel bouton bi. dugal nga taxaw fii ndax dañoo voté tey. bu kaay taxaw nii kaay. bu ma la bàyyil ba ma la bës ak bës. umu da nga koy taale fii umu umu taxaw na jàkkaaroo xolal umu umu bugal ne tàllal sa loxo bugal ne bësal nga bës xam nga li ndax wi ma chaque semaine thank you chaque semaine dañuy voté chaque semaine dañuy voté meilleur téléspectateur ah. de la DTV semaine bii nag meilleur téléspectateur bi execo la woon sax mais abara dama lay wax keneen gi waaw execo la mais xaar waaw. ak Mbaye Ababacar Mbaye Ababacar Sow. non Amadou waa Amadou Wade bii comme nañu ko def président bokkatul ci élection yi. Ah, yow doo tiim télécommande doo tiim caméra. Ah. wala yaa ngi nëbbu Mouhamed. ma ne. bëgg naa Oumou Sow Oumou Sow.

bësal noonu la bësal. <laughs> du dem de. andi commande andi commande andi andi commande bi andi. fëgg ko def ko yëpp baax fëgg. Oumou Sow. Oumou Sow bu fëgg. nee naa tëj. déedéet bu fëgg xaaral la. bu <laughs> bul fëgg bouton bi nga appuyé ah dama dama ko activé woon <laughs> bësal lamp mi ngi seetaan Mansour ragalal yàlla bësal ngir yàlla sax ma bëgg toroxal sa loxo mi ma dee umu saw bul bësi da ngay ragal ju wàlla wax mu tàkkaale eh, Jupiter <laughs> Un jour près de la frontière américano-mexicaine dans le cadre du concert à ce mur. Ils protestent contre le projet de Donald Trump de construire une nouvelle barrière séparant les deux pays. ce qui veut dire très concrètement que c'est des performances, notamment évidemment des économies sur des opérations, euh, avec d'abord